يوني فلماذا تجعل الطالب من الأنبياء والأولياء مشركا ولا تجعله مشركا عندما يطلب من الوزير أو الأمير بل من الفاجر والكافر يني لطح سوفي كنتني نتكي ساكنا تيب يننت باي ووتورم كوم نيكو شيخ سيدي حاج مالي سيدي alaa ya rasulallah ya afdal alwara woo yonent bi sallallahu alayhi ngir xetuliku ci ay xat-xat yu mu nekk ndax boobu tubaab bee fi nekk la jël ñu wit la jël sëriñ si wit taxaw ngir gàllankoor diine mu woo yonent bi pour yonent bi ñaan yàlla loolu yàlla teggil leen ko ci réew mi booba réew mi metti na lool ci lañu jëlee maam borom Tuubaa yóbbu ci la ñu jëlee Samori ture ci la ñu faat góori yàlla yu bari Cheikh Sidi Hadj Malick si nag moom def tawasul ci yonent bi pour yàlla musal ko ci tubaab bi ak ayam mu ne alaa ya rasulallah ya afdal al wara fa ha nahnu fi diqin shadidi tarakumi mu ne lu tax kon su fekkee ki yaakaar yonent bi ngir yàlla wala mu yaakaar waliyu bi ngir yàlla ba woo ko pour yàlla faj ay aajoom wala mu jaar ci moom pour jaar ga nekk sabab ci yàlla faj ay aajoom ndax wulwul boppam ci bàkkaar tabarakallahu mu def tawasul ci yonent boobule walla ci waliyu nga ne kii de lii mu def tax na nga ni mushrik la aji bokkaale la nee na te doo ko def mukk aji bokkaale bu fekkente ne dem na ci ministre bi di ko ñaan mu indi leen courant ci dëkk bi wala mu dem ci ministre bi di ko ñaan mu tabaxal leen benn satudoo ci dëkk bi wala mu dem ci ministre bi di ko ñaan mu xotti leen aw yoon mu di tali bu ñuy jaar wala yeneen ci xeeti ajo yoo xam ne doomu aadama dana ko am ci ministre am wala mu am ko ci député am wala mu am ko ci meeram am wala mu am ko sax ci boroom dëkk bi di buuru dëkk bi di amir bi donte sax kooku muy wut ndimbal la ca moom ab kàccoor la boo xam ne du jóg mukk ci mooy yàlla te loolu la ñu gën a xam ci suñuy njiit wala sax ki mu koy wut ci moom ab yéeféer la boo xamante ni gëmul yàlla boo xam ne faalewul yàlla mën naa am sax ab ate la boo xam ne gëmul dara ndimbal la muy wut ca moom moo xam lettre bu muy bind la wala ay kàddu la yoo xam ne dafa jàkkaarlook moom di ko ko wax mu di ay càkkute fi muy sàkku ci moom loola jàppewuloo ko ne bokkaale la te e, ki gëm sëriñ bi su defee tawasul ci sëriñam wala mu def tawasul ci yonent nga ne loola bokkaale la nee na te même sens la rekk ndax ñoom ñaar ñëpp jëmuñ ci yàlla directement dafa am fu ñu jaar pour seen aajo faju moo xam ki def tawasul la jaar cib yonent wala cib sëriñ jëmul ci yàlla directement ki am soxla dem ci euh, ministre bi di ko fa wut wala mu dem ci député bi di ko fa wut wala mu dem ci meeru dëkk ba di ko fa wut moom itam demul ci yàlla directement kon nag bu fekkee ñoom ñaar ñëpp lu ñu fas mooy fii ñuy jaar ay sabab la ñu yoo xam ne bu ñu fa jaaree yàlla dana gaaw ci faj seen aajo ñu jaar fa ba tey rek yàlla la ñuy waxal feek ñu ngi fas ci seen xol ne yàlla leen di dimbali donte am na fu ñu jaar loolu kenn du ko tuddee mukk kenn du ko tuddee mukk ne loolu shirk la moo tax nit ki la mu fas ci xolam loola mooy indi mu nekk bokkaale wala mu bañ a nekk bokkaale mooy ngi gëm ne an nafu wa dur min allahi waaw ak lor daal ak njëriñ ci yàlla la jóge moo tax ñu ne suñ boroom subhanahu wa soo demee ci suratul baqara gis nañu ne ba banu Israil jaaxlee ci jëmm jooju ñu rayoon ba ñëw wax ko yoon ci yàlla Muusa ne ko ñaanal yàlla pour mu dekkal waa ji waa ji wax ki ko rey wala yàlla ci boppam wax ñu ki ko rey yàlla mënoon na wax directement ne diwa ko rey mënoon na dekkal néew bi directement sans intermédiaire lu tax mu digal leen pour ñu rey nag lu tax mu ne jël leen lenn ci nag wi dóor ko néew bi soog a dekkal néew bi kon nag yooyu fa jaar yëpp ay wasaa'il leen yoo xamante ni suñ boroom subhanahu wa ta'ala moom la làqatoo pour def la muy def lu tax yoon ci Yàlla Muusa alayhi salaam ba Firawna toppee banu Israil te Moussa war leen a génne dëkk bi te géej gi nekk ci seen kanam xamuñu fu ñuy jaar te firawna ngi ñëw te jaaxle nanu lu tax suñ borom subhanahu wa taala bi ko yon ci yàlla Moussa rek daal di xar géej gi lu tax mu ne ko dóoral yet wi yet wi lu mu doon lu mu doon ban pouvoir la war a am bay xar géej gi te bu dóorul woon yet wi ni ko ko yàlla digale kon fa la ko firawna di fekk waaye mu def ndigalu yàlla xeebul yet wa dafa dóor yet wa ca géej ga géej gi daal di def ay yoon ñu jaar ca mucc ci ayu firawna kon asbaab yooyu ak musabibaat yooyu mooy luwaa bi nga xam ne moom la yàlla tërale àdduna bi am na zaahir nag am baatin te góoru yàlla yi am nañu doole ju rëy ju leen yàlla jox ci waxtu wa ñuy dund ndax gërëm gu leen yàlla gërëm am nañ ko itam bu ñu làqoo ndax mbokk yi ñun gëm ne mbugalu bàmmeel am na kon ndeke nit ki gannaaw bu dee ba noppi am na beneen dund ba muy dund gis nañ ci xadis mu wér lool yonent bi sallallahu alayhi wax ne nit ki bu ñu ko dencee ñi ko dencoon suñu dee ñibbi moom néew bi dana dégg seen dàll yi ne muy dale ci seeni tànk ñuy waxu di ñibbi gannaaw bañ ko dencee ba noppi su fekkee nit simple yi ñoo am loolu rawatina góoru yàlla gis ne ne itam shuhada yi muy martyr yi ñoom itam am neen pouvoir ndax wax naa ne Habibu Najjar moom nga xam ne moom la yàlla di nettali ci suuratu yaasin ba ñu ko reyee xam nga shahid la martyr la lu mu wax yàlla yàlla yi yaa layta qawmi yaalamuun ba mu koy wax kon ruuxam a ngi dund mu yërëm aw nitam ne aka neexoon ñu xam teraanga bi ma yàlla defal kon ndax yàlla dana teral xabibu najaar bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mukk segam xabibu najaar la ruuxam dem ñu rey ko mu yërëm ñi ko rey ne bu ñu xamoon teraanga bi ma yàlla defal kon su fekkoon ñëpp a yem ci dee kon suñ borom subhanahu wa taala du nettali loolu ci xabibu najaar am na nañu génn àdduna ñu leen di mbugal ci bàmmeel ñooñu amuñu jotu def benn intervention ndax seen ruux amul doole seeni ruux dañ leen a tëj ci ay kaso di leen mbugal ba ba àdduna di tukki am na ñoo xamante ni nag fa ñu ne yàlla daf leen fay teral ñooñu nag am na ci ñoo xam ne am nañu pouvoiru fa ñu toog di def ay intervention fii ci dund àdduna di am ay jaam yu ñuy xettali te ñooña nag ka ci ëpp doole mooy yonent bi sallallahu alayhi wa topp yonent yi moo tax mu ne bal araf na anna hunaka muqarrabina wa gayru muqarrabin وهناك من تجاب دعوته وترجى شفاعته وليس كذلك آه، ومن ليس كذلك آه. وهناك من تجاب دعوته وترجى شفاعته ومن ليس كذلك ولهذا كان كان النبي صلى الله عليه وسلم الشفيع الأعظم في الآخرة وبعده الأنبياء والأولياء والعلماء كما جاء في السنه waxoon nañ leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi yàlla bindee ruuxam ci azal jox na ko fa daraja joo xamante ni moom la suñu maam aadama xam ba ba mu defee bàkkaar mu def tawassul ci ruuxu Seydina Muhammad yàlla jéggal ko bàkkaar ba mu defoon ca lekk garab ga kon loolu dalay won ne jëmmam feeñagul ci àdduna waaye yàlla yëkkati na darajaam keroog ba mu bindee xam ba daraja jooju la maam aadama xam def ci tawasul yàlla jéggal ko daañ ci ñëw insha allahu am na ay ahadis yu ci rot moom yonent bi sallallahu alayhi wa bi yàlla wàccee maam aadam yonent yi di wàcc yonent bu ñëw xam na dara jaam te booba feeñagul ci àdduna yonent yu bari xettili na leen ci dara jaam moom yonent bi sallallahu ci kàttanu yàlla bi muy dund itam ci dara am na ci ay saxaaba yoo xam ne dimbali na leen ci ndax am na silmaxa boo xamante ni ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tawat ko ne daal dafa bëgg a gis yonente bi ne ko tee ngaa muñ mu ne ko ah xam naa ne muñ sax dëgg la waaye bu ma sañoon rek di gis yonent bi ne ko demal nga jàpp mu jàpp mu ne ko jullil ñaari rakka mu julli ñaari rakka ñaan ga ñaan ci daraja yonent bi la ñaan yàlla delloo ko ak gisam kon moom itam bi muy dund tabaarakallaahu nit ñaa ngi amoon yaakaar ci darajaam di def tawasul ci darajaam yàlla di faj seeni aajo di teggi njàqare yi tabaarakallaahu ba sax wax nañ leen ne juif yi eh, xam guñ ko xamoon xam darajaam taxoon ñu doon def tawassul ci darajaam ba yahudu ba ne xaybar yahutu xaybar yi bi ñuy xeex ak arabu Ghatafaan ñu leen di gañe saa ne ba ñu bëggee gañe ñoom dañu def tawasul ci daraja yonent bi sallallahu yàlla may leen gañaay yonent bi sallallahu bi mu génnee àdduna itam darajaam dafay continuer nit ñi di ci def tawassul gis nañu ne bekkoor am na Makka Médine ba nit ñi jaaxle ñëw wax ko sayyidatuna Aïcha mu ne eh, mbaar mi tiim raw doom dangeen koy teggi ba nga xam ne diggante asamaan ak rawdu yonent bi sallallahu alayhi dara du fi dox su ngeen defee tawasul ci darajaam dana taw ba ñu ko defee mu taw ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne kenn mënu ko jeexal ci ay tawasulaat yoo xam ne ba léegi tabaarakallaahu e, ñi am leer am cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa xam aslëf ci maqaamaam e, ñu ngi koy def ci ay tawasulaat yàlla di faj seeni aaju ndax foofu lay yam ñu ne déedéet bu bu ëllëgee bu ñu taxawee ci péncum yowmal xiyaam foofa sax la dara darajaam di gën a feeñe ndax la ko suñu boroom digoon fa la dig ba di gën a amee maana ndax ca la ko yàlla di joxe ashafaatul kubra nga xam ne boroom bàkkaar yu mag yépp daañu mën a dugg ci biir ram moom suñ borom wax ci suratu duxaa ne wala sawfa yutika rabbuka fa tarda jëmm jooju nga xam ne ëllëg yowmal xiyaam yonent yépp moom la ñuy yaakaar ndax kenn wóoluwul sa bopp waaw moo tax mag ñi nga xamante ni yàlla may na leen basira ba ñu xam yonent bi dëgg-dëgg dundu tasawuf dundu xaqiqa ñoom sopp yonent bi sax moom leen gën a yaakaar ci jaamu ya ñu doon def muy julli yaag koor yaag ya ndax xam ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa yaakaar ko def tawasul ci dara ak maqaamaam mu ëpp doole moo tax suñ borom subhanahu wa taala dafa bind jaam yi am ñu mu jël ñu jege ko lool am ñoo xam ne dañu sol yàlla lool ngir seeni bàkkaar mu bind ay jaamam am ñoo xamante ni daf leen di nangul ñaan du delloo seen ñaan mukk te yonent bi sallallahu alayhi wa ci la bokk moo tax ñiy def tawassul ci yonent bi sallallahu alayhi wa lañ ca namm mooy bu yonent bi déggee seen soxla moom ci boppam mooy ñaan te bu ñaanee yàlla du delloo ñaanam kon fokk ñu xam ne yàlla bind na jaam yoo xam ne du delloo seeni te jaam yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa moo ci jiitu te moo di seen sang kon boo defee tawasul ci moom ñaan ci dara jaam mu dégg ko daal di ñaan ne yàlla diw sangam kat yaakaar na ma ba ñaan ci sama daraja pour nga fajal ko ajar sangam wala nga jéggal ko bakkaar sangam wala nga wuññil ko njàqare sàngam la shakk ci ne yàlla dana nangu ñaan gi ndax du delloo ñaanu yonent bi sallallahu alayhi wa am na ci jaama bi koo xam ne bu ëllëgee bu defee intervention yàlla dana ko nangu dana ko nangul dégg nga lépp loo xam ne ñaan na ko ëllëg bu ne yàlla bul lakk diw yàlla du ko lakk bu ne jéggalal diw yàlla jéggal ko waaye nag am na ci jaam ñoo xam ne yàlla du leen nangul dara jegewuñu yàlla yàlla du nangu seen ñaan ci ëllëg yomal xiyaam bu ñu ràmmoo yàlla du leen nangul mu ne nag yonent bi sallallahu alayhi wa moo di ash-shafi'ul a'zam fil axira moom mooy ki nga xam ne mooy rammukat bu mag bi ëllëg yomal xiyaam gannaawam nag ñu ci am daraja di ramm mooy yonent yi après waliyu yi après boroom xamxam yi loolu nag dikk na ci sunna ay xadis yu bari ñëw nañu ci moo tax nga dégg soppeem ba di imaamul busayri radiallahu anhu di wax ne walan tadiqa ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم واو إذا الكريم تحلى باسم منتقم من يو يننتبي بي لينيان لاي نيان بو يالا سولي ألك مبم kurfayonteeg ña ko soob ci ay jahamam su boobaa maa ngi lay ñaan nag sa daraja yàlla bu mu xab ci man maanaam yal na yal na yaatu ci sa daraja ba bokk ci ndax daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam moom xanaa ku ko yàlla xatal ci yow waaye am yaatu na lool moo tax ñu ne wal arwaaxu inda al muslimina baqiyatun baada al mawt wa laha afaalun wa aqwalun tax ñu ne wa taalama jaat fi lmanaami fa arshadati lmustarshidina wa wa agaathal wa agathati lmalhuufin mhm. ñu ne daal ruuxu jullit ñi gannaaw dee yàlla bind na ci ruux yooyu ay jëf ak wax ci seeni barzax waaw su ko defee am na ci ñu baax ñi yàlla am ñoo xam ne ñu ngi ci seeni bàmmeel waaye léeg-léeg seeni ruux tabaarakallaahu def ay jaloore ci dimbali ñu leen yaakaar ci seeni xat-xat ak ci seeni njàqare ku bëgg nag sa ruux mel noonu fokk nga nangoo roy yonent bi sallallahu alayhi wa teg sa tànk ala shariati wa sunna fokk itam nga sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fokk itam nga dara jaal ko su ko defee bëgg bi nga bëgg yonent bi gannaaw ba nga bëggee yàlla bëgg yonent bi fonk sharia bi roy yonent bi roy sunnaam loolu moo lay yéegal ci maqaama yi nga xamante ni tabaarakallahu tudd nañu ko fi te awliyaa yi di ko am kon tabaarakallahu mbokk yi bu ñu bokk mukk ci ñi nga xam ne dañu gëm ne yonent bi sallallahu alayhi dafa dee ni ñëpp dee yëgatul dara gisatul dara déedéet ndax martyr yi mënuñu ëpp daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa qabixun wallahi bil mumin an yeyasa kama yeisa alkuffaaru min ashaabil qubur mu ne ñaaw na lool ci ki gëm yàlla mu naagu kom ni yéefir yi naagoo ci ñi nekk ci bàmmeel yi ne xamatuñu dara yëgatuñu dara déedéet ñaaw na cib jullit ku gëm yàlla dégg nga jis gis boobu ak pas boobu di nekk ci moom nanu jàpp ne yonent bi mu ngi dund di am ñu muy waxal ci gént am ñu muy waxal ci jàkkaarloo nanu jàpp ne buñ jullee ci moom dana ko dégg bu ñu ko nuyoo dana ko dégg bu ñu ko waxee suñu soxla dana ko dégg te mu ngi ñuy yàlla mu ngi dox ci goxu asamaan yëg yu suuf yi di dem fu ko soob ñu koy teewlu nag tabaarakallaahu ci barab yi ñuy jaamoo yàlla xam ne foofu moo di barabam moo tax tiijaan yi suñ dee jàng jawharatul kamal ba àgg ci juróom-ñaareelu per dañuy teewul dikku yonent bi sallallahu alayhi kon ñoo ñu gëmuñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa dee ni nit ñi dee déedéet dee na nag waaye dafa làqu tabaarakallaahu kon ñaaw na lool boroom xam-xam yi neneen neen wa qabixun ñaaw na wallahi giñ naa ci yàlla ne ñaaw na bil mumini cib jullit an yey asa muy naagu kama yeisal kuffaaru comme ni yéeféer yi naagoo min ashaabil qubuuri ci ñoñ bàmmeel ya kon nag dañuy def tawasul ci moom tabaarakallaahu nanuy julli ci moom ndax amul lu gën a dëgër julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo gën a gaaw sax ci xaraamal sa yaram ci safara te loolu xadis bu wér la kon nag ñu tegandi foofu suñu ba suñu baaraam tabarakallahu ba ajuma ji di ñëw ñuy nuyu nag suñu technicien bale di maam Cheikh Diop tabaarakallaahu ak ña mu àndal ñoom biraa nag tabaarakallaahu ñoom sàmba si ñu ngi nuyu duutloo bu tiwaawoon di soppe di auditeur di nuyu itam soxna Isa Fall moom itam di soppe di nuyu soxna Anta ca Yoof di nuyu Alsaan Seck di nuyu itam Racine Goudiabe di nuyu Alioune Guèye góor gi Massène Mbaye bu alxaaji Massène Mbaye di nuyu soxna Daba Ndooy ca Yoof di nuyu itam du Jóob moom itam ca Yoof di wëllëre di soppi di xarit di nuyu soxnaam di nuyu Babacar Taal ca Kastoor tabaarakallaahu di nuyu alxaaji Mamadou Pouy di nuyu al imaam alxaaji Sekk Njaay tabaarakallaahu di nuyu tabarakallahu waa jàkk ja yëpp di nuyu Seydou Kane di soppe di xarit ca marché Castor di nuyu itam soxna ba ñaan ca jëppal tabarakallahu di nuyu itam rakkam Ayda ñaan di nuyu Oustaz Cheyba tabarakallahu ci Safina FM di nuyu itam borom rajo bi tabarakallahu di tabarakallahu Cerno Yoro Ban سن بوك سن خريط سن صوفي شيخ احمد التجاني ندوم دون ديفال وقتاني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته